problème sincèrement faut pas paniquer les gens les familles aussi je suis sûr sont en contact. non kenn les gens mais euh, Fatou balaa nga jël kàddu gi mais le président de la république kàddu yi mu yëkkati moo taxoon euh, famille euh, victime famille excusez-moi famille étudiants yi génn. kenn ne affaire voilà parce que li président bi wax moo tax.

Euh, personnel de qualité maanaam des ressources de qualité yoo xam ne xale yi bu ñu ñëwee fii dinañ leen mën jël en charge. non non non c'est pas la question xam nga bu benn maladie bu demee noonu xam nga SRAS xamoon na fi Ebola am na fi euh, ñun on l'avait très bien géré l'Ebola je me souviens très bien euh, ce cas qu'on avait. géré nañ ko très bien. donc c'est pas un problème de moyens c'est une question de solidarité internationale entre les peuples. problème am na fële mën nañ ko fa régler pourquoi les mettre dans des avions abandonner ñii ñiy jaar fi non c' est ça dans cet esprit là que le chef de l' a décidé. solidarité hmm. internationale dem ba euh, say doom maanaam seen ñu am njàqare seen famille am njàqare mais également seen bakkan nekk ci xottu gerte parce que treize lañu. sur hmm. onze millions de population yu nekk Wuhan euh, kenn ku ci nekk mën nga xëy am feebar bi. vous savez Sénégal day jouer sur les relations bàyyi. mën nga sax dem plus loin xam ni Chine quand même dépasse C'est pas, pas, un petit village, non la, la ville, Chine. Hein, je parle de la ville. Hein, voilà. De... Mais bon, la Chine, c'est 59 euh, provinces, 59 millions. Là. Mm -hmm. 59 millions d'habitants, la province. Dépasse le Sénégal, le Berry. Mm -hmm. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, moment bi, nous les choses se passent très bien il y a aucune raison de s'alarmer surtout que tout le monde a été rassuré mm -hmm. y compris les familles donc je pense que comment les familles ont été reçues est-ce que dañ leen dalal parce que gis nañu Moustapha Diakhaté mu wax ne le président de la République li gënoon mooy mu dalal njabootu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ville bi feebar bi feeñ dañ doon ay doomi sénégalais est-ce que loolu am na wala fu mu toll c'est ce que ils ont ñoo sax ñoo njëkk a ay moyens balaa état sénégalais di envoyé. Mhm. financier j'entends. Mhm. donc côté boobu j'ai beaucoup de respect pour Moustapha Diakhaté mais quand même am yoo xam ni état moo koy gérer ak état. Mhm. je pense que le février d'ailleurs le président chinois s'est adressé directement au président sénégalais. donc lu ñu waxante kooku je pense que bu ñu fi nekk di dugg ci ay affaires yoo xam ni ñu <laughs> ñu xamuñu ko c'est vrai qu'on adore débattre dans un pays démocratique mais am na yoo xam ne c'est deux états qui le gèrent les deux chefs d'état se sont parlé et je vous dis la dernière discussion c'est le 2 jël dégg nañu ambassadeur bu Chine wax ne euh, jox nañu Sénégal bi mu amee Ebola 175 jàppale ko mhm. woowuñu benn doomu réewu Chine ne ko fi nga dem est-ce que tey loolu moo doon réponse bi loolu lañ ak la ci Chine taxawee woon vous dire rek ñoom tamit boobu problème la amee jëluñu seen ay mbokk yóbbu. est-ce que c'était la réponse quand même dans cette euh, situation? moi c'est une réponse diplomatique et c'est une réponse vraiment qui est là montrant que les peuples sont solidaires. devant les problèmes, on doit rester solidaire. C'est ça, man, je, avant de passer à autre chose, dañu gis ni que euh, ci ci point bi ak itam euh, li muy li muy am président Macky Sall bu génnee addu foog ay partisans am ñëwaat di jéem a expliquer li mu bëggoon wax réellement finalement est-ce qu'il ne communique pas mal. xam naa yaa ngi wax problème communication yàgg nañu ñu ko reproché nag nous la mouvance présidentielle mais je pense que c'est vrai que lenn loo xam ne dugg na ci nopp génnee ko mais bon on s'évertue à faire de notre parce que ñun on passe plus de temps à travailler alors que ñeneen ñi passe plus de temps à parler donc euh, c'est ça aussi l'opposition mais moindre détail gars yi que comme une mais là ça ne marche pas nous travaillons. et mais vous êtes d'accord que si bi il a mal parlé. on s'améliore toute euh, toute œuvre humaine. toute œuvre humaine ay njaboot tamit euh, loolu du communication. non non premier jour bi xam naa ne ñu tiitoon bari na ñun. ñi ci amul woon njaboot sax tiit nañu il faut le dire quoi. mais écoutez je ne suis pas dans là il a une bonne équipe de communication et cette question là je pense qu'il viendra vous le poser mais je trouve que. lorsqu'on a interprété ses propos comme une question de moyens c'était pas ça question de logistique c'est important et surtout par devoir de solidarité les chinois boobu Ebola amee fi demuñu ñun tamit boobu ñu nekkee fële problème bi amu fi demuñu te ñu ngi koy soigner dans de bonnes conditions et ça s'était très bien passé d'ailleurs d'accord alors peut-être laaj la comment se porte euh, Dakar Dem Dikk euh, sachant que yenn syndicaliste dañ lay peindre comme étant un dictateur bon Dakar Dem Dikk mooy Dakar Dem Dikk rek <laughs> avant demul dikkul wala bu demee du dikk mais Dieu m'est témoin la vous êtes là aussi en tant que témoin objectivement que euh, si tout n'est pas parfait il y eu beaucoup d'évolution en quelques années ñu ngi liggéey nag coow nag il faut mu am Sénégal dafa am démocratie dafa am lu ñuy naan liberté d'expression il faut que les gens s'expriment mënoo fi ne nit ki du wax euh, na wax lu ànd ak euh, yoon bañ a tooñ bañ a wax lu ñaaw et puis wax day rafet donc di wax dëgg aussi c'est ça qui est important mhm. c'est pourquoi Dakar Dem Dikk moom syndicalisme dafa am doole dañuy wax seen kii di àq ak yelleefu salariés yi que c'est ça qui est le ci droit du travail li ko def def ko ci code du travail bu fekkee seen carrière la seen santé mooy IPM seen salaire seen prime yooyu yëpp. licenciement yi est-ce que loolu bokk na ci liberté d'expression. vous savez vous savez gis nga gis nga. entreprise. Euh, c'est pourquoi bokk ci code du travail dañu ci bind licenciement bind ci embauche. eh oui c'est dans le code du travail licenciement n'est pas en dehors du code du travail ça dépend est-ce que la raison. lu tax raison yi moo tax waaw loolu laa voilà donc moi je pense que euh, j'ai quand même euh, depuis six ans le président de la république mu ma def confiance teg ma de Dem Dikk ba ma fa ñëwee dégg ngeen avocat la lay doy si transport mais yàlla moo xam def na la muy def liggéey nañ ci si liggéey lañ dëkk les résultats sont là bu fekkee tamit nit mi nga am droit am di exprimer wu muy un syndicaliste da koy exercer jusqu'à ce qui est permis mm-hmm. ce n'est pas parce que tout est permis que rien n'est défendu dans toute démocratie il y limite des limites bu fekkee ñëw nga taxaw le mot vilipendé xam nga am na ñu ngi ko créé les syndicalistes le mot vilipendé ñëw wax loo xam ne amul loi bi ne ci texte yi si règlement intérieur mooy constitution Dakar Dem Dikk prouver ko mënoo ko prouver nga ne dama doon farce rek dama doon diffamer mais dañu prévoir un texte kii di en cas de diffamation lii moo ciy dal. Mhm. xam naa nag Sénégal mais li tax mu bëri coow Dakar Dem Dikk coow li dafa bëri ci entreprise bi dañu koy dégg ci presse bi syndicaliste yi daanaka kenn mënu ko wàññi. c'est quoi sant yàlla depuis six ans parce que balaa ma fiy ñëw dañu may confier kër gi parce que dañu ma ko confier mënul woon toog trois mois te amul grève arrêté réseau bi mais ça fait juróom benn at ngi nii. Mhm. amul sax benn jour de grève parce que waxante dëgg dafa am parce am na yoo xam ñoom am nañ ko am na ñoo xam ñu ngi si dans le privé di def même liggéey ci transport amuñu sax le tiers de leur salaire loolu tamit ni nga ko wax sénégalais yi les yeux dans les yeux ku ci liggéey sa liggéey am sa liggéey jàpp ko ko fonk ko mm-hmm. bu fekkee am nga loo revendiquer jaaral ko ci yoon mm-hmm. man sama buntu tëjul je descends toujours à 22 heures et Dieu m'est témoin que tous les jours que je fais les mm-hmm. cinq jours il cinq syndicats bii syndicat moom ñu def ko mais bunt bu ubbeeku ñi ñu jaar ci fenêtre bi di def leneen wala di diffamer mais c'est sûr que à un moment à un autre mm-hmm. on appliquera le texte. Mm-hmm. c'est pas nag de d'être trop. alors nga jóge ci Dakar dem dikk ñuy wax Sénégal dem dikk Gambie nekk première dëkk bu nga xam ne foofu nañu war a desservi ak insécurité bi nga xam ne am na ci sous-région bi amoo benn crainte par rapport à cela. bon vous savez ça fait des années quand euh, nañu. c'est-à-dire euh, depuis 2015 2016 ñu ngi commencé di maye d'abord la capitale mooy l'urbain Dakar dem dikk c'était la capitale yóbbu nañ ko ci banlieue bi ay Kounoune ay Tawfekh pour que ñëpp gis seen bopp aussi c'est important que la la capitale s'agrandit ba mu ñu jógee foofu en 2017 le 1er février ñu lancé li ñuy naan Sénégal dem dikk loolu genre démocratisation transport la moo ne Sénégal yemul Dakar il faut ñu boole si ñëpp boobu ñu koy commencé coow bari woon na fi ni naan non Dakar dem dikk warul def interurbain mais accident yi bëri ay oto yoo xam ne ñoo mag seen chauffeur oto yoo xam ne boo ci too sa tànk foo ko teg boo ko xoolee gis suuf si boo xoolee ci kaw gis asamaan yenn saa yi sax gis bu ñu takk ci kanam mais le chef d'État pour moderniser le nee na il faut que lii ñu mu jóge fi ay sept places yoo xam ni ñoo mag seen chauffeur donc loolu bu am ñu def Sénégal dem dikk ñu naan bon sénégalais mii la ñu jox waxtu dem waxtu mais tey c'est un succès accident yi ñun mele wuñ ci je touche du bois j'espère que c'est du bois. ñii mhm. c'est du bois <laughs> ñu ngi sant yàlla de profite de l'occasion d'ailleurs di féliciter samay chauffeurs yëpp bu dee chauffeur dem dikk yëpp nekk Sénégal dem dikk ailleurs. la sécurité dans la sous-région. c'est important ça c'est important au niveau de la sécurité dans la sous-région beneen étape la bii c'est le plan national la Sénégal dem dikk mais l'international c'est ce qu'on appelle l'Afrique dem dikk. kooku vision boo xam ne la benn jour maa ngi toog sama kër. Afrique dem dikk la di seetaan télé effectivement j'entends le chef de l'État à di naan vision wu CEDEAO dafa war a nekk réalité tout de suite loolu la ñu nekkee aussi ah nous appliquons sa vision. Alors, on a mis les règles mu prévoir lépp lu ñu war a def lu ko mu war a àndal dem gis douane parce que produit yu ñuy yuy jàll frontière boo ko wala nga jogee fii dem Louga. Mhm. ñu xool ko j'ai vu j'ai rencontré le directeur général de la douane jógee foofu rencontre le directeur général de la gendarmerie. ñuy waxtaan sur beaucoup de choses parce que jógee fi dem Guinée jóge Mali dem Mauritanie dem c'est pas la même chose y a des choses yoo c'est interdit am na ay passagers yoo xam ne waruñu voyager seul comme des enfants mineurs parce que l'enlèvement des enfants xam nga c'est dangereux euh, autour de nous aussi comme ni nga ko waxee y un problème de sécurité dans certains pays mhm. mais je pense que fii nga xam ne commencé nañ ko parce que c'est par étape c'est pas les yeux fermés commence nañu Gambie le janvier dernier ça se passe très bien d'ailleurs je me suis déplacé physiquement jour boobu dem fanaani Gambie gunge bus bi ça bien passé bien moo tax ngi dox bu ñu pegee fii ngi Mauritanie Mali ainsi que la Côte d'Ivoire